journalistes yi ak organe de presse yi fi teew yëpp ma leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay di aussi sant ak gërëm euh, samay xarit euh, samay rakk samay camarade ak am di jàmm yi nga xam ni bàyyi nañ seen soxla yëpp ñëw fii teew maanaam di ma encourager ci li nga xam ni ñoo laa nekk nii ndaje bi ñu am tey lu ko waral mooy dafa am benn euh, waay bu tudd Ousmane Sonko ak i ay saaga yara di ko ñàkk tegin ñàkkin tegin boo xam ni mënu ko wax mënuma ma ko fenn génn ah loo xam ni lu metti waaye ba la ma ciy dellu soit bu tout simplement wax ni man mii maanaam agent de l'état la état bi moom lay liggéeyal ma nekk ci service am et que boo nekkee maanaam un agent de l'état nekk ministre dafa am loo xam ni daf la war ci état mooy kuréel état bépp kuréel état bu am te ji saytu liggéey bu nga xam ni moom nga koy defal yow danga am obligation fépp fu la fu la wooyee te yoon may ko ko te yoon tëral ko da am obligation déglu ko wala nga seeti ko ci liggéey bu nga xam ni état moo la ko sant loolu nag dama ciy xaw a xuus tuuti état bi dafa bëri ay kuréel yoo xam ni maanaam day saytu sa liggéey. bu ma ci jëkk lim mooy euh, IGE mooy inspection générale de l'État nekk présidence de la République kooku bu ko président bindee lettre di ni ko demal nga saytu liggéey yi ministre liggéey wala les organes de l'État wala maa xam moo xam ni maanaam ay société wala agence day dem fekki leen saytu leen beneen bi Cour des comptes Cour des comptes ay magistrats ñoo fa nekk mën nañoo toog xool ay agence wala xool ay structure de l' état décider dem ni dañuy saytu seen liggéey dañuy dem aussi fekk leen benn rek nga ci am droit jóg ñu convoqué la nga dem fa mooy bu amee commission parlementaire comme nag foofu c'est le pouvoir maanaam parlementaire ñoom am nañu sañ-sañ convoqué la nga ñëw am na yeneen am na ay IGF nga xam ni mooy inspection générale des finances kooku ministère de finance moom nga mën a bind lettre mu déclenché ko ñëw seet say projet wala say programme am na yeneen aussi am na ay contrôle financier am voilà voilà même loo am na sax contrôle interne yi nga xam ni ñoo nekk si sa ministère mais am na beneen boo xam ne ngi tudd nag président de la république moo ko créé pour maanaam bon gouvernance mu gën nekk réalité damay wax tey nii OFNAC boobu leen bu fekkee yoon may na ko bu ko fekkee yoon may na ko maanaam mu convoqué ministre man de bu fekkee yoon may na ko mu convoqué ministre du ma sax maanaam soldat la damay xel dem fekk leen waaye ci lu ma xam ak lu ma gëm yoon moyul of nag loolu léegi pour ma dellusi ci lu Sonko doon wax maanaam euh, alarba bi bi passé te mu doon wax ni audience boobule nga xam ni man maa ko accordé woon man maa ko ko mayoon mu ñaan ma ko ma may ko ko audience boobule am na moom ci ay génnam nee na naa wax kañ la naa wax fan la naa wax ban la ba ma ko koy may booba man maa ngi nekk délégation général à la protection sociale et à la solidarité nationale par Parchap délégation boobu le man maa ngi fa jógee en juillet 2014 te audience boobu le ba muy am moom moo ko laajoon je répète moom moo ko laajoon ba muy am benn fonctionnaire bu mag moo foon te fonctionnaire boobu magistral moom moo teewee audience boobu le waaye nag man du ma wax waxtaan bi nga xam ni waxtaan nañ ko tout simplement dama mënul comprendre xam nga c'est normal qu'un Sénégalais soxla gis président mu fu mu jaar ku ko yombalal loolu lu normal la lu normal lu koy mooy nit def ko ba pare di ko weddi loolu moo ma jaaxal waaye bu xam nga dañuy wax ni bu fekkee da nga ne damay xeex système waaye bëccëg bi nga ni ndar kàmm ni ngi maa ngi koy xeex waaye bu guddee ngay jaar ci diggante bunt yi di ko seeti boo ci amee problème kooku du ci man ci yow la waaye damay wax leneen pour jeexal waxtaan boobule moom ci boppam am na benn élément sonore moom moo ko def am na te fan yii passé loo ko def te ci biir élément sonore boobule moom ci boppam nangu na ni audience bi am na wax na kañ la ak wax na ku ko fekke loolu nag comme yoon mooy ma man ma génne ko dama koy ñaan moom ci boppam bu mu autorisé ma bu ko bu fekkee bëgg na ko man ma génn ko bu nee prit man ma génn ko bu neexee yàlla donc loolu lay xaar mu def ko donc jox ko presse bi jox ko Sénégalais yi donc maa ngi leen ko gërëm bu baax di leen sant asalaamualeykum wa rahmatullahi taala jërëjëf.